mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di nuyu di am ak contentement bu mag a mag a mag jàkkaarloog ak yéen ci SBT Média mbokk yi tey le 16 janvier 2021 16 janvier nekk dat boo xamante ni souvenir indélébile la sénégalais yi dootuñu ko fàtte ba mukk ndax 16 janvier saa bu dellusee xel yi dem ci ki nga xamante ni moom mooy ndongolo ndongolo mu sëñ Fallou ndongolo mu sëñ Abdourahmane Mbacke moom sunu yaay ndeylu ndongolo mu réew mi ndongolo nekkoon koo xamante ni doomu réew mi la fi la juddoo ci réew mi yaroo ci réew mi màggee ci réew mi nekkoon daanaan mën a way lool su way rek nga xam ni daanaan way na ah sénégalais yi bëggoon ko keroog rek la mës a def loo xamante ni keroog naqari na sénégalais yi mooy bi mu jógee ci àddina 2005 nekk date boo xamante ni sénégalais yi dootuñu ko fàtte Ndongo Lo mi ngi judd 1975 fii ci réew mi la juddoo nga xool diggante bi mu juddo ak bi mu fa jógee yàggul yàgg na yàggul ndax jëf na fi loo xamante ni ju doomu aadama yi doot ñu ko fàtte ba mukk le 16 janvier 2005 la wuy ji boromam 16 janvier tey 2021 nekk bokk ci bés yi nga xamante ne ñu fàttaliku Ndongo Lo tey kan la ñu seet si got si got si Godsila Mbaye kenn dootu ko présenté kenn ci réew mi fi mu jaar ak Ndongo bari na li mun mën a wax ci Ndongo Lo bari na moo tax tey ñu waxtaan ñu seetsi ko fas yéene am ak moom waxtaan ci Ndongo ci jaar-jaaram ak Ndongo maa ngi lay nuyu. Balla maa ngi lay fay. di la sant. ginnaaw yàlla bu ñu santee sunu borom. julli ci Seydina Mohamed ah di gërëm sunuy ñaari waajur di leen ñaanal. yàlla na suuf sedd seen kaw si barke Seydina Mohamed ak bépp jullit bañ fa fekk vraiment yow boo ñëwee pour di ma laaj ci Ndongo Lo dinaa si sawar duma ma si sori nag ndax nag àdduna luñ naan ndoxum joor la te buy taama ngay niis te danga maa laaj ki nga xam ni kooku gars yi dañoo war a wax mbiram ndax dafay bàyyi loo xam ni. tuwaar fakkal la macha allah Sénégal ba léegi loolu ay mbiram fétiche la maanaam ay wayam du jeex fii ba yombal fii fii ba àdduna di jeex dañ koy déglu Ndongo Lo yàlla na suuf sedd si kaw yàlla na ko yàlla xare àjjana nit ku baax nit koo xam ni woon ndeysaan na mu tol rek la toloon waaye at lu ñu naan àdduna ku si nekk ku ràcc la sa kanam rek luñ naan li olof di naan ku ràccale sa kanam jëmale sa kanam mu dël parce que ndongo ku ne rek boo dëkkee biir pikin war ngaa mën a wax si moom artiste nag maanaam bu demee ba tuwaar fa kàlla macha allah ba lépp taxaw yëfam day yaatu te ndongo yëfam dafa yaatu woon waaw mais am na fu mu jaar ak man foo xam ni wax dëgg yàlla daan naa tëgg ay programme waaye léeg-léeg ma seetaan gars yi sax naan waaw bu ñu waaw dañ doon way ay tànn béer mais tànn yooyu am na ñu ko doon tëgg tànn béer yooyu géew ba am na ñu ko doon géew ba waykat yi ñëw di way. mais am na way way bu mu doon way fii tànn biir bi amul fii xaw ma tànn biir la xaw ma. waaw got si laa sunu réew mi léegi am na lu mu ci doon way. waaw euh, waaw boobu mi ngi naan ma got si laa mbay sunu réew mi boo fi bëggee baax baa nga tekk fi foog ngay wax lu ñaaw ndax gars yi dañuy root ci teen bi di naan ci teen bi di sangu ci teen bi di fóor ci teen bi man sax dama siy dellu ni ngay galaxndiku ci teen bi te lu teen bi deey nga xeeb got ci laal yi dafa ñaaw te dëgg la te jamono ji ñu tollu ah loolu bari na fi ndax nit di xam ni dinga nga séq ak nit te doo maanaam doo suul jëfam mukk doo suul jëfam tey mooy li ma la wax rek la ndongo waxoon suñu réew mi boo fi bëggee baax mooy li yi di naan ah te gin dem nañu way tànd biir dem nañu ngénte mais ngénte yooyu yend yooyu am nañu ko doon tëgg ñoo xam ni Pikine bari nañ fi woon doole lool ba waykat yi sax lañuy ñëw taxaw bu ñu paree bu ñu bu ñu paree ñu ñëw jox leen micro yi ñu ñëw woy gaañ yi mais lépp sotti seeg def si la ñoo bokk ndey ak baay ndax tëggkat bi fecckat bi woykat bi noo kenn mënul dem bàyyi sa moroom mais il faut gars yi mën a xam loolu kenn mënut a dem bàyyi sa morom mënut a nekk jëmm la ak takk ndeer ndongo nag tuwaar fa kàlla macha allah ñëw jóge na këram ñëw ba si man ni ma got nu ko am ni ma. man de xaw ma Papa Ndiaye yow laa xam ndongaa ma ko wax de mu ngi si dëgg maa ngi siy fen billaahi wallaahi ma ne ko waa ndongo la xaw mënu ma waaw parce que dama dem woy fa morso ba boo bëggee gis kuy tëgg damal si moom te man yow laa ko fentaloon ndongo man wax na ma loolu te bu ëllëgee tamit dina ma ko waxaat sa yomal xiyam ndax moo ma wax loolu te ndongo lu coow li bari bari ba ni ko fi yàlla jëlee lii nga def nii kenn musul ñëw man laaj ma te am naa fi cër Ndeye Khady moo moo dàqoon na fecc Ndakaaru te doon bàyyi da doon jóge ba Ndakaaru ñëw di ma jël si may toj Liberté 3 te bari na am yu bëri yoo xam ne sax duma ko wax man Samba Diarra Mbaye du got si laa boo ma laajee si ndongo dama si sawar. non mais li tax ma ñëw fii di la jël si pour laaj la ci ndongo dama xam dama fekke ndongo ci kër gi ci lu bari mu nekkoon nit ku reconnaissant dëgg la loolu moo tax ma ñëw tey jox la micro laaj la ci ndongo. nit ki boo koy laaj danga koy laaj ku ko xam. waaw loolu waaw ndax ki la xam ndax ki la xam moo la mën a sedd ndax ki xam rek moo la mën a sédd ndongo bi mu ñëwee wax ma loolu ma ne ko ndongo mu ne ma damaa dem woy fa woy ba ravin affaire bi am buzz Pape ni ma lii il faut ñu def ko single te moo tax ma ñëw di la tàggu si parce que man yow laa xam ndongo laabaan tëgg naa ko ba taay sax mu ñëw way ko boobu ndongo gars yi xamaguñ ko woon boobu simb sax amagul boobu Lamine Ndiaye moo fi indi simb fii ku fi njëkk simb peer la père moo fi njëkk simb ñu koy tëggal Adama Ndiaye yow yaa ñu wattal suñu waa ji arga ba rus guitar go rus ñu mi peer di fecc loolu te boobu man xale laa adduna di dox ba simb fay àdduna di dox ba Lamine Ndiaye jóge Gàmbi ñëw fii simb fii nekkoon fii kër grand boy lamb làmb euh, mbër mhm. waaw fii télé bu bees mhm. ñu ñëw simb fii simbal laa fe mbaay simbal ma fii boobu Pam Ngom sax simbagul boobu Pam Ngom euh, mi ngi jàng boobu Lamine Ndiaye mi ngi ànd ak Sadio Ndiaye si la ko Sadio waxee am naa sama benn booy boo xam ni macha allah si la ñu indee Pape Ngom waaye ñun ba ñuy tëgg yendu yeeg biir Pikine boobu waxuma sax ay ñoom boobu ay ñoom ndongo sax boobu xaajaguñu woy sa Moussa Pathé kon loolu yàgg na si biir pikin waaw gaa ñi nag ah am na loo xam ni buñ koy bëgg a fàtte rek dañuy xaw a naax saay waaye li ma naan man kameraa yàlla rek a ma saf moo gën a wóor te moo tey moo doon li nga xam ni moo gën a dëggu mais am na ñoo xam ne si caméra yàlla dañ siy dox ndax dañuy xam lañ la la nit ki yellool mooy baay baay bàll la tey li nga def tey danga def lu riche te ñu ko fi mën a def bari na mais da maa woo ni ma got il ma ñëw laaj la si Ndongo Lo ndax am naa lu ma fekkee kon bàyyi loolu dama la siy sant di la si gërëm faal fa kàlla macha allah def nga lu rafet mais Ndongo Korog bi ma waxee loolu xam lan laa ko tontu dama ne ko bu yoon jeexul wo non ni ma damaa bëgg dimbali sama yaay ma ne ko ndongo bu yoon jeexul wax su lu jeex damal wayal wayal ko ba mu saf te bul defe ni papa Ndiaye lay wane de yow yaay wane papa Ndiaye mu naan ma en grand jour boobu ndongo mi ngi dem Touba ñu changé ay dàll man ak moom ma jox ko ay nippé yu rafet mu jox ma ay ay trenil ni ma grand damay dem Touba lii dafa rafet ba ma dem ba ñëw. kaset boobu Allemagne laa ko dégloo woon kon ndongo am na fu ñu jaar te am na si bëri sax yoo xam ne dama koy xaw a fàtte sax parce que bi ma waxee loolu dama ne ko ndongo way boobu il faut mu yëngatu ndax fu ñu ko mësee tëgg si ñeeño yi ñeeño bala mañ say amul kuy toog foo ko mësee foo ko mësaana way ñëpp ay jóg boo bëggee gis kuy tëgg demal si moom gars yi ni kin caakin loolu du tey kon ndongo bul defe ni Papa yaa koy wane moo yow bul defe ne yaa moo lay moo lay wane yow yaa koy wane ndax woy boobu fétiche la bu lu doy waar la woy boobu Allemagne laa ko dégloo kon tuwaat fa kàlla macha allah loolu ah ku la du la ko wax koo amul koo xam ni am ngeen fi ngeen jaar du la ko wax kon ndongo am fu ñu jaar boo tax mu jugee ñëw ba tàgguma te bu ko neexoon du ko si fekk ndax waayam la waaye nag ma bàyyiwuma sax benn waayam mais sama jigéen ni ngay seeyee si biir kër gi. maanaam maanaam ayoo ayoo aye yow sama jigéen. suturaak yaakaara taxoon man ma taamu la keroog banu la takkee jële la kër indi la ci kër seet lu naa booba léegi jàmm amatu fi yaakaaroon naa ni su ma la takkee indi la ci kër jéegu puso ngay doon di ñëw diggante yi te boobu ba léegi jàppal fii jàppal fee coow guddi coow bëccëg moom la nu fi dëkke sëyub jigéen ci biir kër taamu naa ca bay fexe ñëpp booloo doon benn benn def ju rafet baax na lool xale yi ci yow la ñuy xool. loolu dafa bari. loolu ball xoolal xoolal yooyu yooyu parole. yooyu ak parole yooyu mélodie ak yooyu parole. mais ci xale yi mën a jànge bari. dafa bari te loolu te loolu dafa xew si jamono ji sax ndongo la mu woy lépp ngi nii tey moo tax euh, xale yi jigéen ñi toor fa kàlla macha allah dañoo war a gën a mën a góorgóorlu. ndax Sénégal dafa doon suuf su baax dafay nekk suuf suuf bu baax moo fi ne waaw ay nit ñu baax taxaw fi kon moo tax ndongo loolu mu woy jeex na fi luñ naan amoon na fi dootu fi am. Euh, mais sàmba Samba ak fi réew mi tollu ah nga xool ndongo ak jaar-jaaram fi mu jaar ci milieu showbiz bi fi mu jaar ci ci aar ak ni mu ci sonne te boo xoolee. ba léegi lekku ci dara lu bari. Mhm. est-ce que jotul ngir way yenn waykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci réew mi di ay doomu réew bi doon ay ndaanaan mhm. ñoom it mën a way lool mhm. ñu ànd doon benn concurrent mënta ñàkk ci musique mais ñu rafetal ko ñu rafetal ko bañ a waxante lu ñaaw bañ a defante lu ñaaw ku ci ne fonk sa moroom ndax nag sàmbali cool yu bari bari bari ku wéet di nga xam yow la kan ndax nag olof yi dañ ne doomu aadama buy dund ci kaw suuf sa xolay sa te saa boo xëyee ci ngay jaar. Mm-hmm. saa boo tëddee boo doxee ba guddi gi xaaj. Mm-hmm. sa bopp yow la kan lan nga yéene doomu aadama yi bu subaa moom ngay am ndax c'est vrai que ni goes around comes around. Mm-hmm. xam nga ni ma la wax maanaam dañ ko war a rafetal. and doon benn say rafetal ko. rafetal ko ndax àdduna dara saxul loo fi gis dafay jeex. am na ñu fi newoon Njaga Mbaye nga fi woon Njaay Sàmm Buuba ngi fi woon ah Papa Joosi Jóob Badara Mbay Kaba. ñooñu Ablaye Naar Samb ñooñu ngi fi woon anañu tey ah jeexul tey kenn waxatu leen kon àdduna lépp dañ koy rafetal waaw li nga wax noonu dafa am solo loolu même même bu dul aar bi sax ci lépp si lépp lu mën ni doon doomu aadama léppam ballu tàng si la parce que nit ku ne sa xol mooy sa écran mm-hmm. mais image ba yàlla na rafet te bal tànksi bi ngay sànni yàlla doon bal bu nooy mooy wax ju rafet yërëm ndaw ñi xam nga te war warmaal mag ñi xam nga te def loo xam ni daal vraiment euh, la Ndiaga Mbaye waxoon rek. Mhm. dane woon bu njëkkoon. ndaanaan ndaanaan dafa daan jóg gane ji ndaanaan. yor këram wan koy gërëm géeram. ànd ak moom. wan koy géeram. doxak moom. wan koy géeram. wan ko ay géeram. waaye nag léegi loolu amatul wan ko ay soppeem. Mm-hmm. wan ko ay xaritam. wan ko ay dëkkandoom. Mm-hmm. wan ko ay neex a dëkkalam. Mm-hmm. waaye nag léegi loolu amatul. la wax <laughs> mu ni. Mm. loolu jeex na fi. da ngay dajeeg nee na loolu. Mm. jeex na fi. Mm. dañ naan la maytul kee. da ngay dajeeg daanaan mu naan ndax ya mën kii. mais njaga mbay yaa war a wax yaanu sax bu mu la taxaw. waaw waaw waaw. ngi nii. waaw. Samba Diarra Mbaye si la. yaa war a way. yaa ñu saf. yaa fi ne. Hmm. non bu mu la taxa wax loo xamul. te bul suulit jëfu bul suul bul fakk jëfu nit. Hmm. waaye na mu ko defee waxee ko noonu. Hmm. du tee nga doon ki nga doon. du te gis nga ba du xëccoo asamaan. mais lan la amul xoolal abal moo xool. mais lu fi xew. amul xoolal amal mais mais ñun ñun affaire bi bëggal doomu aadama ñun dañoo war a bëggalante ñun dañoo war a di soppante dañoo war a ku ne li nga yellool ñu jox la ko ku ñëw ñu xam yaay kan mais ndaanaan mooy suul ndaanaan Balla damaa bëgg nga xam loolu ndaanaan si boppam mooy suul ndaanaan bu si kenn nax ndaanaan mooy suul ndaanaan bu baax a baax waaw bu baax a baax ku ne ku ne la nga sëq ay ndaanaan si lu baax ak sa pouvoir buñ koy wax kon nga xam ne lépp dëgg la. kon nga xam ne lépp dëgg la kon nit dina toog suur xam ni ah kon dëkkate ki waaye nag bu ñuy suul say jëf mais nag bu fekkee fekk yaa ngi gis asamaan si xëy na dara weesul xëy na la. tense temps c'est le meilleur xëy na loolu dina mës a leer ndax nag lu nëbbu woon xëy na dina mës a feeñ ndax tollu nañ fa nag tollu nañ fa de lu fi doon nëbbu lu ne dina feeñ lu fi feeñ nag yàlla na doon lépp lu rafet. Balla sant yàlla. sant yàlla ndongo géej la. du jeex lu ne mën nañ see waxtaan lu ne. ba suba ba suba. du jeex lépp lépp ngi si biir. kàddu gu mujj gi. waa xanaa suñu sant yàlla rek. te nag ah, li fi xew si àdduna bi laay wax sax. ah yàlla dàqal ñu ko. muy coronavirus bi bi nga xam ni vraiment moo sonnal jaam ñi. lakkal ñu lool. ñoo bëgg ñoo laxasu. waaye yàlla na ko yàlla làqar ñi. si barke Seydina Mohamed si bark Sëñ Fallou mu abal ñu vraiment gars yi Sénégal àdduna ku ne nekkat say activité si yu baax loolu daal laay ñaan mooy sama dernier kàddu di sant yàlla nag te naan di sant Serigne Bamba nag bu baax nag di sant Serigne Bamba bu baax di ko sant bu baax Mbàkke bala Yeso waaw. jërëjëf mbokk yi comme ni ko sama mag suma xarit waxee rek got si làmbay coronavirus Covid 19 nekk mbir moo xamante ni jaaxal na àdduna. waaye jaaxalul yàlla déedéet moom azza wa jalla zil jalaali wal ikraam mbokk yi mu nekk tawat boo xamante ni tawat bu yàlla yabal ndaw bu yàlla yabal saa bu matale rek dox doxam covid 19 mu njëkkoon épidémie la woon ñu dem ba ne léegi pandémie la pandémie boo ko déggee ce qui veut dire que ni kon laal na àdduna bi yëpp mu nekk tawat boo xamante ni yàlla rek moo ci mën dara yàlla nañu ci yàlla muccal muccal ci mboolum jullit yàlla mi nga xamante ni lu mu faxas mu dam yàlla na ko yàlla faxas ndax réew mi jaaxle nañu àdduna jaaxle na amul ku jaaxlewul ci àdduna bi ndax tawat bii benn activité amatul li gën a metti mooy saabu boo xëyee ñu tënk la yu yëpp dafa metti stressé doomu aadama yi te stress rek tawat la mhm. waaye nag nanu dellu lépp ci yàlla ndax sama yaay nee na lépp lu la jaaxal lu ne na ko bàyyi ci loxo yàlla sunu borom boo ko defee rek mucc mën naa am mbég mën naa am bu ëllëgee mbokk yi le 16 janvier comme ni ma leen ko waxoon au départ bésu Ndongo Lo la tey moo taxoon ñu seet si got si làmbay mu sunu yaay cekka gite mu mooli taamu mooli ma mooli mi dun daam sunu yaay cekka yal na buur yàlla sérili cëram waaye mbokk yi tey ma jaare fi rek jaare leen ki nga xamante ni mooy suñu grand suñu peer jaw ma koddu mbay jaw nekkoon nit ku yàlla baaxal nekkoon fële ci réewum Italie fa la ñàkkee bakkanam ñu ngi koy déggoon ajaratu koy faal mu baax mi jaw ma koddu ñu ngi koy jaale réew mi yëpp rawatina askanu ngéwal yëpp nekkoon koo xamante ni nit ku yàlla baaxal jaw ñu koy jaalee koddu koddu koddu koddu mbay nday koddu ñu gën ko xam ci bébé koddu di ko jaare bel fii mbay ah di ko jaale famille bi yëpp fan bi yëpp di ko jaale nogal nogay vraiment jaale ko Alioune Badara Fall ah suma xarit jaale ko Baye Matar Fall nekku nit ku baax ku bëgg njaboot ah, yàlla na buur yàlla yërëm ko te jéggal ko xare ko ca àjjanay firdawsi mbokk yi tey danoo ñàkk koo xamante ni kenn la jaale askanu géwël mhm. jaale jaale jaale tamit sunu yaay gencaam sunu maam gencaam gan caam mm-hmm. ca tëngéej ah yaayu yaayu yaayu yaayu yaayu euh, ki nga xamante ni moom mooy suma ndijaay euh, Zugulu suma ndijaay Ablaye Ndiaye ah suma ndijaay Cheikh Mbacke Gueye ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale sunu maam gan di ko jaale ëxlu nga yéen gépp ëttu rabbin gépp ñu ngi leen di jaale jaale gan caam di jigéen ju baax jigéen ju yiw jigéen ju tedd jigéen ju bëggoon njaboot fonkoon njaboot am fu rëy foo xamante ni dafa féete woon njaboot gi waaye nag fépp fu mu féete woon njaboot gi rek yal na fa yàlla féete mbokk yi ñu ngi koy jaale Abi Gueye suma yaay suma xarit yal na yàlla defal ñëpp jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën mbokk yi c'est le griot du peuple qui parle Baye Balla Mboup c'est vrai que ni lu dul jàmm jàmm ko gën anglais bi dañ ne happiness is when we happy together. yàlla yaa géwélu fan. le griot du peuple. waaw mais loolu war naa mën a ne. waaw le griot loolu day yaatu sax. loolu incha allah. man nag maay griot de simple. <laughs> Samba dafa neex. Ah, man maay de simple. <laughs>